يسير بي الجسد الذي غادني لا كريم علي معروف يسير سكري بأقلامي وقلبي وجسدي لمن كان waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ginnaaw bu ñu santee yàlla. julli ci yónnenteem bu tedd bi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ñoo ngi sant sayxul xaddiim di gën a dëgëral suñu kóolute ak suñu yaakaar ci moom. di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa mu yàgg fi lool te ànd ku gër ak mbooleem njabootu borom Tuubaa gi yëpp. di ñaanal xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall suñu borom guddal fanam may ko ak wér ba li mu yéenee liggéeyal maamam mu def ko te ànd koog moom. di sant bu baax a baax a baax ci daje bi nga xam ne woote nañ ko ngeen ñëw wuy siñu di leen ci sant di leen gërëm ndax temps dafa jafe kon nit saa boo ko wooyee mu dagg ay yitteem ñëw rek war nga koo sant war nga koo gërëm lii nag du guléet chaque jour lii lañ dund la ñuy dund ak yéen saa bu leen wooyee ngeen ñëw wuy siñu yàlla na leen suñu borom fay te woote bu ñu woote rek xamal ne njariñul gox bi dong moo tax ñu koy woote waaye woote wuñ ko ngir leneen di leen présenté suñu gan gu baax gi xabaan ñëw na ci léegi waaye nag dana am loo xam ne danañ ko ci yokku muy Serigne Saliou Sylla mii day suñu xarit di koo xam ne mën naa ne ñoo defandoo lépp fii ci Touba mu ànd ak magam ju baax ñu koy wax Serigne Abdoulaye Sylla Abdoulaye Sylla nag présenté ko ci Touba gi yomb na ndax li tax mu yomb mooy boo ne ab jullit la da ngay mën a teg sa baaraam ci li tax nga ne ab jullit la boo ne ab murit la it teg sa baaraam ci li tax nga mën a wax ne kii ab murit la jullit gi mooy dañ koo xam xam ay waay juróom ñu doon ay jullit be loolu benn benn atte la ñaareelu atte bi mooy dafa jëf-jëfi jullit ñëpp xam ko umma islamique bi nga xam ne moom moo nekk Sénégal muy këri diine yi amul benn këru diine boo xam ne da nga fa dem tudd fa aw turam te newuñu la eskay ndax la mu leen defal loola lu nit mën a teg baaraam la lu nit mën a teg bët la boo demee Kaolack ci gàmm gi rek moo ci mujj lam fa def ñëpp teg nañ ci seen bët nga dem Jaasaan lam fa def ñëpp teg nañ ci seen bët nga dem Tiwaawoon lam fa def ñëpp teg nañ seen bët nga dem Yoof noonu mbooleem këri diine yi nekk Sénégal amul génn kër goo xam ne si la dugg fa def fa teraanga Touba gi nga xam ne fi la bokk nag doon taalibub Serigne Touba doon murit foofu moom duñ fi wut sax ay seeru yu bëri ndax lépp lu fi def da ko fee war a def waaye nag jaajëf mënta ñàkk ci nit koo xam ne dafa def lu baax si la bu màggalu Touba jubsee bu desee fukki fan ak juróom lay jël bépp matériel boo xam ne am na ko jëlee ko fële nga xam ne fala fala fala séesam nekk ca Dakar fa la koy jëlee déplacé matériel ba yëpp indi ko fii Touba bépp camion bu ngeen gis mu am bopp bu bula ak kees gu zone Abdoulaye Sylla moom moo ko moom société boobu mi ngi tudd Ecotra fii la leen di indi biir Touba mbooleem lu fiy ndox mbalit ak lu ñu war a sëkk lépp moom moo koy defar ba pare ak yeneen teraanga yoo xam ne da koy dugal ci biir màggal gi loolo ñi xam programme mu màggal gi te di ko dund xam nañ ko gis nañ ko teg nañ ci seen bët loolu kon mën nañoo wax ne ab murit la ñaareel ba mooy fii la léppam nekk muy Touba boo demee fii ci corniche su Daara Jolof boo laajtee kër docteur Sylla ñu wan la ko boo yéegee ca koo fekk fa néegam néeg boo xam ne moo ko moom yaaye ma nga fa baaye ma nga fa ay rakkam ma nga kii rakkam la ñoo bokk ndey ak baay mi ngi nii toog kon kooku du koo xam ne dañ naan natta bi naan xam nañ ko wala xamuñu ko ku ñu xam la gaar bu ndaw laa nekkoon man mii di liggéey mécanicien ancien biir këram laa yaroo man naa ne xam naa ko bu baax a baax xam naa it doon jëf na fi jëf joo xam ne nag jëfi jullit la ndax jëfi jullit weesu wut néegub yàlla c'est la première fois ñu waaxu ñëw ci yow ak yow ne la jàkka ji dafa manqué ay rajo ñu bëggoon ko ñu ci dimbale nga ànd ak ñun jënd ay rajo yoo xam ne toll na ci juróom fukki junni daanaka yëkkati ko jox ñu ne ñu dem ngeen yóbbul leen ko ñu ñëw indi ko pare mu ne danaa ca topp ak sama tànk ñëw xool teraanga ja ma leen defal lépp lu ma ca mën a dolli ma dolli ko ca loolu yaakaar naa képp ku ko def def nga jëfi jullit te moom mii nii moom moo ko def bay faal la lépp la boo gisee comportement bi xam ne bay faal te am na comportement comportement boo xam ne tey am na ñu doon doon li mu écopé fii ci Touba ak ni mu mel soo ko gisee yaakaar naa da ngay da nga ko da nga xool ci beneen place wala da ko séentu ci beneen niveau waaye doo ko fekk ci niveau bii mu nekk nii nii mu mel nii noonu la mel soo ko fekkee kër sëñ Abdou Karim nii nga ko fay fekkee boo ko fekkee seen kër ca saal ba mu toog nii nga ko fay fekkee taalube la Baay Faal la te ñun xam nañ ci dara ndax ñoo moom ñoo yarandoo kon ku baax a ngi nii seere nag dafa wax nit ñi dañoo wax ne nag seere boo seere ci nit da ngay seere ci moom loo xam waaw say naa ilaa bi maa xalim naa duñ seere ci mukk nit mukk lu mu lu ñu xamul kii li ñuy seere ci moom xam nañ ko ab taalube la as gor la ku baax la ku yéwén la kon sëñ bi ñoo ngi lay dalal bu baax a baax di la wax ne fii daal ñun ñoo ngi ci sa ginnaaw ndax kat ku am sa ku am fasu gattax ne la jàppal ñu dem yaakaar naa soo amee oto dana la ci dugal kon sëriñ bi si la ñoo ngi lay ziyaare bu baax di la jox sa wàccuwaay di la dalal fii ci tawfeex xam naa dañuy profité rek ñëw ci délégation bi tuuti daje bi nag ni mu demee nii ku nekk xam na ne Touba jamono yii dafa am ay réalité yu fiy dox moo tax ñu simplal ko nii defee ko nii ngir def ko ndaje murit lépp tege ci ak taalibe ah bu jeexee ñu ñaanalante moo tax mu demee nii waaye mënoon naa gën a ëpp nii ambiance mënoon naa gën a ëpp nii ampleur waaye ay taalibee Serigne Touba lañ te nag ci ndigal rek lañ bëgg di dox kon loolu ñu bàyyi ko xel bu baax kon xam naa dañuy njëkkalante waxtu wi joxe présentation bi nga xam ne moom la àndal Serigne si la moo nekk nii jàkkaarloog yéen sol njaxas bu rafet bi takk kurus gi Serigne Malick Samb ma ne moom xaritam la moom moom fu ñu jëm ñooy ànd Serigne Daouda Ndiaye Serigne Assane Ndour sëriñ Cheikh Diop sëriñ Ndiaye waa ñooñu ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom la àndal ñoo ngi leen di dalal bu baax a baax a baax di leen jox seen waay di leen sant di leen gërëm it di leen wax ne ay gan yu tedd ngeen ndax ku déplacé wu seet si la rek kooku tedd na ci yow suñu mag ñii ñoo ngi leen di sant bu baax ñii ñooy waa jàkka ji waa jàkka jaa ngi nii toog lépp loo def ca jàkka ji ñii nga ko defal muy ñii tey koo ci jox loxo boo ne ko bu ne la sant wa nga ne ko silla danaan la fa ñii a baax ñooŋ moom ñoo bokkoon nekk Touba Baye Talla Seye mii xam na sa baay Pape mii xam na sa baay bu baax a baax a baax ndax jàpp naa ne xam naa ne li mu séq ak sa baay tey bu ko waxoon fii ngeen di fanaan kon sa kër nga ñëw ñii say baay lañ ñii suñuy suñuy baay lañ suñuy lépp lañ ci seen gannaaw lañ top kon ñoo ngi leen di dénk suñu gan gii bu baax a baax a baax moom it ñoo ngi lay dénk suñu baay yii amuñ lu dul jàkka nag ñoom jàkka ji rek am. ku leen ci taxawal rek taxawal nga leen ci lépp kon loolu la amoon ci lu ñu ciy wax. mbokki bi yi asalaamaaleykum yéen waa Tawfekh ñu ngi leen di siyaare bu baax ca di leen jox seen wàccuwaay ca di leen ñaanal Tawfekh it di jël kàddu goo xam ne nii mi ngi jógee ci mag ñi nga xamee ne ñooy mag yi Tawfekh jógee ci mag ñi nga xamee ne ñooy magi gox bi. waaye jógee ci mag ñi nga xamee ne ñooy magi jàkka ji ah, ñooñu nag ñoo boole seeni kàddu ñoom ñëpp ne woon nañ ko yëkkati fii ci digg taw Tawfekh ci kanam sunu gan gi nga xamee ne mooy Serigne Saliou Sylla di rakki ah, Serigne Abdou sila di doomi docteur Sylla ah, mu mel ne yaakaar naa yow mi wax docteur Sylla maa la ko gën a xam xam naa ci loo xam ne nii bu ma ko doon wax fii fi lay fanaan ah, maag ñeneen samay moroom ku mel ne ay Moustapha Seck ak gaa yu bëree bëri dañuy dem ci moom ah, soxla dara ah, bëgg a dem ci keneen mu ne jërut ngeen dem ci keneen li ngeen soxla lépp wax leen moom ko mu faj ko kon xam naa ko kon bu defee lu mel nii lu toll ne néegub yàlla ñu war a noddu war a julli ca kaw nga xamee ne buñ yurut ay rajo danoo war a teg ay gën wala ay bidon wala tegale ay mool ba mu kawee nit taxaw ca ku am taxawaay war a noddu ndax mu kawee loolu yëpp mu dindil ñu ko tey ba yaakaar naa rajo bi ay kilomètres lay euh, dox ñi daan biddanti kenn biddanteetul kon euh, Serigne Saliou ñu ngi lay sant euh, di la ñaanal ci lii nga ñu jàppale mu mel ne ñun nga koy defal ay sa bopp nga koy defal ndax néegub yàlla yaakaar naa ku ci def lu yokk ndaxte. Eh, eh, eh, allahu akbar joo xam ne nii ah, wala salaatu xayru mina naw joo xam ne da nga ko wax ña doon nelaw ci fajar ñëpp jóg damaa jëlale jaamu ak yàlla waaye xéewal yi nga xamee ne ñoom la ñuy taseel ci fajar googu nga xamee ne jóg nañ ko yàlla na la ci yàlla boole ci barkeb sëriñ Touba sëriñ Saliou yàlla na la fi yàlla yàggal ci wéral la ah, waa tawféex mag ñi dañoo wax ne seen xol sedd na seen xelit dal na seen yaakaar gën naa dal ci yow di la wax ne gone nga waaye ñu ànd nañoo ak ndax ndaxte ñoom amuñu lu dul néegub yàlla bi lu waay mën a wax ak lu waay mën a xew fii nga xamee ne fii la ñuy jaamoo yàlla bi nga ñëwee yow njëkkoo def lenn lu dul euh, ñëw ci ñoom defal leen ci noddukaay boobu ca jàkka ja loo xam ne nii euh, da koy yokk di woote wax dëgg yàlla mu ni su la fay tawfeex gépp a ngi lay sant di la ñaanal keroog bi nga xamee ne teg nañu euh, rajo yi bëccëg googu dañoo yendoo jàng daanaka ba jant bi soo kon loolu wax dëgg yàlla te tawféex la joo xam ne euh, ni nga xamee ne ni la kawee rajo yi kawee ko euh, euh, woote woote bi yàlla bi kawee ko yàlla na ngeen a kawee ci barke Serigne Saliou mi nga xamee ne moom lañ la tuddee mooy juróom-ñeent fukki tuli yàlla yi ak juróom-ñeent kon yàlla na la yàlla fay ci barke Serigne Touba di la wax ne ne jokkale bi nga xamee ne am nañ koog yow muy xale yi nga xamee ne ñoo la womat ba indi la fii dañ leen sant muy Serigne Bàcc Diop. sëriñ euh, Lamine Niang sëriñ Xabaan ak euh, xale yi nga xamee ne ñoom ñëpp ñoo ànd nekku say di dox saa suñu xëyee ci tawféex euh, di jàng saa suñu bëccëgee ci tawféex di gont saa yu ngoonee ci tawféex ca dara war lu ko lu dul jëmmi tawféex naat jëmmi tawféex jëm ca kanam jëmmi tawféex lu gox yëpp am ñu am ko fu ñu xam lu baax bu buñ ko mënee indi indi ko du tey rek mooy njëkk ci loolu fu ñu xam lu baax rek ña ngi koy nemmi di ko indi kon ñooñu euh, ñu ngi lay wax ne gën nañ laa dénk xale yooyu di la wax ne ñooy suñuy tànk ñooy suñuy loxo ñooy suñuy bët ñooy suñuy jëmm lépp loo xam ne wax nañ ko ñoo ko wax lépp lu ñu def ñoo ko def ndax ñooñu ñu àndal ñoom lañu àndal te ñooy suñuy tànk fu ñuy dem ñoo ñu fay demal kon daal ñu ngi lay dénk xale yi dala wax ne la ay jàmbaar lañ fii ñu jógee jógee day wax dëgg yàlla waa koñ bi yëpp sant nañ leen te nii ko mag ñi santee ni ñu leen santee ne la leen jigéen ñi it santee ah, jigéen ñi may ñi may dégg ñëpp kenn ku ne xale yi defal nañ leen loo xam ne defal nañ la loo xam ne nii mënuloo ko woon sa bopp defal nañ la loo xam ne nii waroon nga ko wuti feneen te ñoom indil nañ la ko ba ci sa bunti kër ci sa bunti néeg nga di ci jëfandikoo bu baax a baax dafay mel ne ah, ah, sant yàlla moo wax ne ku la defal danga koy sant ñu ngi lay sant ngir yàlla ñu ngi lay sant ngir yàlla ak Serigne Touba mi tax nga def euh, jëf ju rafet ji ñoo ngi lay ñaanal saa borom yokk saw fan te wéral la li nga xamee ne moom la ma mag ñi wax loon lépp lépp yaakaar naa bu ma ko waxee dana niru beneen programme te programme bi ñun li ñu ñor muy ak taalibe gën nañoo kontaane ci nii nga ñëwee ndax euh, sa euh, jëmmi Touba wala jëmmi Serigne Touba bi nga xamee ne tàmbali na Cheikh Ibra wane woonu yoon bii nga xamee ne Serigne Mountakha taxawaat na di Serigne Touba Cheikh Ibra moo wanewaatu yoon kon ndokk bi nga ñëwee doon ab Baye Fall wan ñu jëmmi Baye Fall yàlla na saa borom yokku wéeral la ci barkeb Sëriñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax kenn ku nekk sa turu bopp ak sa sant bopp di leen ziyaare bu baax te di leen baalu di jiital ci nuyoo bi ak ziyaare bi seex Cheikh Mouhamadul Mountakha te di ko ñaanam bu yàgg fi loolu te ànd ko wér ak mboolem jabatug Sëriñ Tuubaa yëpp te di ñaan suñu borom def jàmm ci réew mi. di sant mbooleem ñi nga xamante ni teewsu nañ ci jataay bi nga xamante ni moom la woote di sant sunu gan gi nga xamante ni moom moo teew ci jataay bi cant goo xamante ne am na tàmbali waaye amut yemukaay Baye Sall ñu ngi lay ziar bu baax di la wax dalal ak jàmm fii ci Tawfekh yàgg ñi nga àndal ñëpp sëñ maalik ak gaay yi nga àndal yëpp ñu ñu yàlla dogal ñuy nit démb ak tey kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax daanaka ñun li ñuy wax ay tënk lay doon parce que li ëpp ci wax ji Lamine wax na ko ak xaabaan mi ak euh, Baye Pape Ndiaye di leen nuyu bu baax sunu baay yi nga xam ne ñoom ñoo nekk sunu ginnaaw di nuyu nag responsable jigéen yi nga xamante ni teew nañ fi ñu jot cee cité ay quelques ku ci mel ne soxna Maane Mbay ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaare di nuyu bu baax soxna Aram Ñing soxna Njàmba Seen soxna Mbooja Kamara soxna Astu Gaawaan Njaay Baye Talla Seye ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu soxna Awa Fall soxna Fat Fall soxna Maam Jaara Ndiir soxna Awa Fall soxna Mbayang soxna Jobe Diouf soxna Xaar Diouf ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu soxna Nday Jaw soxna Ayda Fall ñu ngi koy ziar bu baax ak mbooleem ñi fi teew ñëpp soxna Aram Ndiaye xañ na buñu leen limee ñii danañ yóbbaale ñi ci des soxna Sooda Ñang ñu ngi leen di ziar bu baax a baax baax ak mbooleem foo xamante ni jigéen jóge na fa muy mag muy ndaw bàyyiwuñ kenn dañoo lim ñooñu ngir ñu yóbbaale ñu ci des ak soxna Xadi Ngom mi nga xamante ne moo nga jógee ba côté arrêt taw feex ba soxna ànd ak ñoom soxna yaama yaama yaama yaama caam ndax loolu lépp ak Pastef la ak bëgg lu baax Baye Sall daal li ñuy wax te di ko tënk mooy ñun taw feex la ñu am depuis 2014 ba 2023 bi muy 9 ans ñoo ngi cay activité de développement te activité de yooyu ñu nekk fii ci koñ bi fépp fu ñu àgg moo ñu fa yóbbu ñaareel bi mooy bàyyiwuñ benn domaine muy éducation muy santé muy environnement muy épargne muy solidarité muy finance muy économie muy sociale muy lépp lu man doon loo xam ne dafay jariñ jigéen ñi ñoo ngi ci di leen ci ñaax di leen ci teg ci ay yoon ba ci yaakaar naa lu baree bari ci coppite ci koñ bi loolu ci la amee comme ni ñu ko faral di ni ko xaabaan faral di waxee léegi. jamono bii ñu toll ku ne xam ne ne dañoo nekk ci ay ouverture parrainage ñun nag moom bi lañu ñu ci jamono bii pour liggéey ndax war nañu loo xamante ne suñu xel dal na. keroog bañ demee këram di waxtaan ak moom dañoo waxtaanoo dañoo demoon di waxtaan ak moom ci entamé benn projet pour liggéey bañ demee waxtaan ak moom ba war a faa jógee Lamine nag mii sama magi jàkka ji yóbbante ma ci yow mu lan mu ay rajo yi jàkko mu ne loolu bu dem da ngeen koy yóbbaale te loolu ba ñuy dem taxu ñu woon a jóg loolu nag wër na Serigne Touba dafa rëy ci man trop Baye Sall loolu dafa rëy ci man trop loolu nag loolu ma woon c'est la première fois c'était la première moo tax ma engagé wu pour jàppale lig ànd ak yow liggéey yow parrainage yi liñ ci jot jot ñu ngi ci commencé woon di parrainer instant bi daanaka liñ ci parrainer lu ko tee mat 100 personnes bariwul ñu ngi ay 70 et quelques jëm 80 parrainer ko kon ñoo ngi tàllal loxo mbooleem koo xam ne jàpp nga ne projet Bathie Diop ak Bathie Diop jot na laa defal jenn teraanga te jàpp ne jàpp Bathie Diop doy na la ci dara ñu ngi lay ñaan parrainage yooyu noonu nga jàppale ñu ci ngir ndax ñun leen dong moo ñu soxal mooy développement wu koñ bi amuñ ci beneen yitte bu dul kon ñoo ngi leen ci tàllal loxo góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ñi ku mel na Baye Bamba Ndaw loolu maa ngi ko ciy soññ bu baax a baax mu gën cee def ab liggéey bu baax a baax a baax kon maa ngi sant bu baax mbooleem ko fi teew góor ak jigéen di sant bu baax Serigne Mbacke Diaw mi nga xamante ni maanaam biñ ko waxee bis bi dana ñëw leen kër gi si kër gi seenu kër la daal di déployer ay moyens génnee bagage yëpp jox ñu génnee kër gi bàyyee ñu ñu génnee bagage yëpp nekk ci buntu këram kon ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm bu baax moog mboolem waa kër gi nga xam ne ñoom ñooy accueillir ci buntu kër gi kon ñoo ngi sant bu baax ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ngi leen di nuyu bu baax mbokki taalibe yi ñu fi fekk ci kenn ku nekk sa tur ak sa sant te di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi yëpp xalif général des mourides Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké di ko ñaanal fan wu gudd lool te ànd ak wér di ko ñaanal tamit sëriñ di Muudu Menda mi xalif Cheikh Ibrahima Fall Lamp suñu borom guddal fanam te wéral di ñaanal tamit ki nga xam ne moom la ñuy àndal di ko jàppale muy sëriñ Abdoulaye la suñu borom may ko ndam lu kawee suñu njort may defal ko li nga xamante ne moom la bëgg ci réew mi rawatina dëkk bu sell bii du Touba. daanaka nag li nga xam ne moom lañu ñu waroon wax yëpp sëriñ Bàcc wax na ko kon li nga xam ne moom lañ leen di leeral mooy li ëpp solo ci mbir mi fi nga xam ne foofu la sëriñ Bàcc daaneelee kàddoom mooy lu jëm ci wàllum parrainage bi ndax parrainage bi dafa nekk loo xamante ni. bañ ji commencé ba léegi sëriñ Saliou mi defal nañu ci ay formation yoo xamante ni yu mucc ayib la ndax parrainage bi ren dafa am ay ay kii yoo xamante ni daf cee nekk ay ndëgg sërëx yoo xam ne daf cee nekk nga xam ne buñ ko bàyyiwul xel mën nañoo dajale dajale dajale bay bëgg a dee suñu ñu rejeté looloo waral sëriñ Saliou mi formé ñu ci ba nga xam ne ñun ñi dem nañ formé wàccu ñeneen ñoo xam ne toll nañ ci cinquante personnes ñu def ko par équipe nga xam ne chaque jour ñi ngi xëy ci ci ci parrainage mu mel ni li nga xam ne moom lañ bëggoon sax pour commune bi matal nañ ko bu yàgg pour pour région de Diourbel matal nañ ko bu yàgg nga xam ne li ñuy dese mooy yeneen communes yi nga xam ne moo wër moo nekk ci région de Diourbel yooyu lañ bëgg topp benn par benn nga xamante ni Touba liñ fi bëgg mooy cinquante mille parrainage te am nañ ci yaakaar bu kaw a kawe kawe kawe parrainage su ngeen ko gisee ndax candidat yi dañoo bari moo waral ñu def ko par ay numéro te sëñ Ablaye Sylla moo nekk numéro un nga xam ne ni ku nekk mën naa ñëw si yow ne la parrainel ma diw boo xamut numéro bi bu fekkee daf laa jox beneen numéro bu di bokkul ak numéro un bi xamal ne kooku nekkul Ablaye Sylla kon parrainage bi yoon code électoral bi tamit daf ciy dàq ki nga xam ne dafa parrainé nit ba pare keneen ñëwaat fay ko xaalis mu pare na waat ko code électoral bi dafa wax ne képp koo xam ne pare na nga nit ñaari yoon ci sa coobaree bopp yoon mën na laa jàpp tëj la benn weeru kaso alamaan la lu toll ci dix mille ba cent mille francs te damay wax ne ki nga xam ne dafa dafa dafa jaay ngorom ngir benn cinq mille francs biñ koy jox mu jaay ci carte d'identité am kam jaay carte ba bu faloo def loo xamante ni bokkul ak li askan wi bëgg na xam ne kooku suñu jaay askan wi la bokk te yaakaar naa sëñ Massamba mi bokkul ci ñuy jaay askan wi ndax moom dara ñëru ko lu dul wàllum développement dara ñëru ko lu dul fii mu dëkk ndax si ay waxam yëpp li muy wax mooy lu ma am waa Tawfekh lu ma am tamit jigéen ñi la te Sénégal nag yaakaar naa jigéen ñi dañ fi am rôle bu am solo kon yaakaar naa képp ku leen ku leen bëgg ku leen jàppale Sénégal rek ci jigéen ñi ngay njëkk. ni mu ko waxee léegi bari na si ay kër yoo xamante ni jigéen ñi ñoo leen yor te duñ ko bakkoo ci mbedd bi duñ ko def dara te coono bu nekk ñu ngi koy daj ci biti te musul tax ñu ne uh yuuxu kon nag suñ Saliou mi am na ay programme yu ama am solo yoo xam ne andi na ko pour yéen kon na ngeen xam ne seen xel dina dal ndax ànd ngeen koo xamante ni ku jara àndal la muy Serigne Saliou ndax nit kat da ngay xool ay waxam daaw ak ay jëfam ba xam waroo nañ te Sëñ Saaliw mi lépp lu muy wax man jooni jooni laa koy wax ndax am na foo xam ne bam ñu fa yónnee yàggut ban yeggee comme lu mel nii moo fa am nga xam ne jox na leen xaalis bu takkoo takkoo takko boo xam ne ci seen njàkke ji la te dane leen loolu ak tàmbali la bis ba mu leen waxoon ñu jël su ko ban ñëwee jël nañ ko fekk nañ ko fi ñooy tamit sant ko bu baax a baax a baax ab politicien liñ ca xam mooy koo xam ne day ñëw wax la ay waxam bu demee doo dafa nekk koo xam ne nekkul politicien moom entrepreneur la te moo nekk koo xam ne moo lay wax tey ne suba jël si nga jël si mu jox la loolu yaakaar naa lu lu ñëpp teg seen bët la kon kii buñ ko xoolee bëtu politicien mais dañ koy xool bëtu mbokku taalibe xam ne liñ bëgg lim bëgg moom buñ ko ci jàppalee suñu bopp lañ jàppale kon jeunesse bi yëpp war na nañoo jub ñu xam ne suñu carte d'identité yii mooy suñu doole. liñ ko mën a jàppalee du du lenn lu du suñ carte yi te di leen wax ne képp koo xam ne parrainé nga ko ba pare képp ku ñëw si yow ne ko parrainé naa diw ba pare. bu fekkee ne nag koo xam ne da ngaa parrainé keneen ba pare bu la suñ laaje laajee na nga ko xamal ni ko parrainé naa keneen bu fekkee ne tamit wax nga ko ñun dinañ la ko jéggal. bu fekkee koo xam ne da ngaa bëgg a da nga ñoo bëgg a parrainer ba pare dem di parrainer waat keneen kooku tamit jéggal nañ la ko ndax ñun bëgguñoo ñoo yàqal kenn mais ñun tamit bëgguñu ko ñu yàqal ndax benn carte bi nga xam ne dafa ñoo parrainé ba pare dem parrainé waatal keneen suñ ko déposé ñun dañ ñuy te benn carte boobu moo ñu yàqal kon yaakaar naa àq dafa sew te ñun lii ñu nekk bëgguñu see amel kenn àq kon dañuy daanelee foofu kàddu gi ndax xaw naa guddi.